mu ragalee koor kii. Mbaye Mbaye yaa ngi toog de. waaw maa ngi si toog bi. Eh. ça va. ouais ça va ça va bien. yow tay mom demo liggéey lan la. eh Mpañ Mpañ mo mon mon nijaay là il me fatigue. Eh? Eh? Oui, moi ici là, je suis venu ici pour pour pour pour pour me noppalu dans le web parce que le web corps de Dakar là, les les les femmes

fu mu toll nii yaay liggéey nga indi fii si biir kër gi ñu mën a dégg nga li wax. j'ai pas bien compris bien compris kay dëgg nga li wax. ni. Eh. Eh, donc donc en fait ça sent bon de. yow xanaa wooro. dama woor. mbaalu da nga bëgg a mel ni. mel moi, moi après, après le war là, moi je continue jusqu'à 30 jours. De après, là, là, là, Attends, moi j'ai parti, j'ai parti poursuivre le carême devant là-bas, sinon. Hein, Mbag Hein, courage, Mangi ñow hein. hein. wa baax na l'essentiel nga liggéey rek yow nga xëy depuis si suba yaa ngi si kër gi demo fenn dama top sa nijaay ngeen dem liggéey ngeen indi fi kër goo xamanteni ni mo yor kër man fi la ko mos gis. kër go xamanteni ni mo yor biir kër góor gi du liggéey dara bu xëyee su ma dang-dangee indi ma togg ba pare ba mu neex lekk ba biiram bi fees dem na wëri fu mu toll nii si koor lañ nekk man damaa sonn loolu duma ko mën comme que léegi booy bi ñëw na jarbaat bi ñëw na léegi mooy dem di lijjante fee indi fii ñu lekk damaa sonn léegi damatuma fenn sama xarit yi léegi kenn du ma gis si yoon damaa sonn duma ko mën

voilà tu vas au supermarché là tu m'achètes du jus hein et aussi des bananes si tu y de la pomme il y en a là la pomme tu m'achètes de la pomme tu ne vas pas manger c'est pas que tu ne vas pas manger ça ça c'est madame et moi c'est fini va si tu es content pleure

منو فيها بنيو بس دي مو وانا اللي حمنا بنيونا واي في لما يفك في لما يفك خبر من خالد وتاخ من لو كيف ما همكو بملعب خالد بيتاخ من والله جنبه جمالو الحمد لله رب العالمين ما فين لك فرسي كنت اسمع ربي ما فين لك لك والحمد لله ما فين <laughs> الله اكبر يلا ما يكرم والله يلا ما يكرم <laughs> دمنا جامي دمنا <laughs> يلا ابو كريم يلا بي لو والله لا إله إلا là vous êtes malin. Moi, je quitte à Dakar, vous allez me prendre pour faire votre esclave ici. Vous allez Wow, waouh, waouh, wow. waaw sant yàlla rek mbaa sonn loo alhamdulilah rek ah, koor gu metti rek ban ak koor gi eh, amul waaw tàng na trop tàng na trop naka xale yi alhamdulilah sa kër gi sant yàlla alhamdulilah alhamdulilah siyaar naa la de naka koor gi nag kii nag suma ah. nijaay nag moo la ko yóbbanteloo ah. waaw jërëjëf ne ko boo demee nga ne ko maa ngi koy nuyu bu baax a baax waaw waaw dina ko dégg dina ko dégg maa koy maa koy gën bu baax a baax dina ko dégg lu ma defal ma xam naa ko dina ko dégg dina ko dégg jërëjëf ah waaw waaw yokko yee di jaay di jaay di jaay am xanaa yow wóoruloo non mais nit yi j'ai les six m'a dit que euh, jot na. ndox jot na. oui ci Casamance. rajo ko dégg. ci rajo j'ai entendu ça. ci Casamance waaw waaw. ndox jot na. yaa ko wax de. waaw jot. ndox ndox dafa jot. ndox jot na. jot na jot na. ah <laughs> ah ñu jaay. na li tey eh. kon <laughs> sénégalais woon génne nañu leen angola génne nañu yaay